ah Bas ah, ah. no Bas kaay na Bas ñëw ah kii wasaare ni ngeen koy gisee yéen ñu ci bare bari da ngeen di gis wasaare bi ni mu mel mais gis ngeen wasaare bi nga xamante ni euh, mooy wasaare news bi ak wasa ak ak 3 3W euh, point wasaare euh, waaw merci moom mi moo ko yor vraiment acti actualité yu bëree bëree bëri moom article yi moom moo koy bind moom mi nga xamante ne mooy Omar ñu koy jaajëfal bu baax gis nañ ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def 100000 abonnés nga dugg lan ngay wax. waa je pense que ne euh, liggéey de longue haleine la lu yàgg la tey jii nii doo gisee Sénégal comme Bas ni ñu ko doon expliqué sànq bi may ñëw Wassare Lamb fekkoon na fi tamit benn situation moom ak góorgóorlam ak abnégation ak volonté comme li ma baaba wax démb euh, affaire du bëgg-bëgg maanaam lu dem rek détermination ak volonté da ngay atteindre ses objectifs moom mu ngi koy teg si yoon am ngeen ay concurrent nag maa ngi ko doon wax sànq si innovation yeeg ak euh, réadaptation yi parce que tey jii nii làmb dafa évoluer évolution bi dafa war a feeñ si si jikko yi si kàddu yi ak si technicité ak ñi koy présenté tey jii làmb nekkatul da ñëw rek jël mbër bi mu daan mu ñibbi nga ñëw laaj ko loo def ba daan mu wax c'est-à-dire comme Bantamba lu mu def. doo seetee moom bi muy ñëw dafay fekkoon benn environnement ba nga xam ne amuloon woon seeti mbër amul woon fekk mbër këram am amul woon loolu yëpp mais moom dafa ñëw révolutionner indi tous si làmb ji. egg nañ cent mille di sant yàlla di leen sant di sant tamit euh, ñi fi nekk ñëpp muy mbéy nag ñëpp ay seen ak gaa yëpp mm-hmm. mais li li wérte woon mooy il faut révolutionner il faut innover à chaque fois technicité ñu ngi koy xaar si présentateurs yi muy yow muy Ouzin mm-hmm. c'est c'est pas que ni kii da ngay rek ah, di wax mbéy bi noo daanee nii nga daanee na non non à chaque fois il faut cesser quelque chose ba nga xam ne mm-hmm. les gens vont se dire ils information mooy lan la technicité dëgg dëgg dëgg dëgg mbër bi nu mu def ba daan c'est-à-dire ak moom tamit environnement familial am environnement personnel am lépp na la koy dundee man foofu laa leen gën a xaare ngeen mën a raw seen ñooñ parce que lu TV mi ngi fii yeneen ñi ngi fii c'est la même chose mais cent mille bi nag c'est pas comme ni ko Adama waxee c'est pas quelque chose de glorifié loo xam ne tey jii mën nga ne lii xam nga tax nañu egg fii wala fi ñaan naa yàlla d'ici deux mille vingt ak site beeg ak célébrité comme ni ma ko waxee bas célébrité ak société ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw ñu euh, romb ay 3 millions wala 4 millions d' abonnés parce que mën nañoo tëb état bi. Mm-hmm. parce que benn vidéo rek doo ko dugalee comme làmbaloog doo calculer analytique bi man dama koy suivre si instant boobu dépassé nañ plus de 100000 dépassé nañ plus de 20000 30000 abonnés si semaine boobu noonu. Mm-hmm. nañ jéem a innover c'est les les gens xam ne ils les gens. loolu laay loolu laa leen di ñaanal di leen ñaan di leen wax nag wasaare news point com mu ngi fi tous les informations la boo leen am boo xam ne exclusivité la. lii bind article yi nu mu tudd lii bind article yi nu mu tudd. point com. wasaare news waaw doo leen ko wax tamit si seen seen communication pour nit ñi mën a dem di visiter. yow article yi lan nga fay bind lan ak lan waaw man nag damay sukkandiku a chaque fois si wasaare lamb bi kii lamb lamb lamb ji. si laay sukkandiku ak yéen vidéo yi ngeen def parce que yéen vidéo yi ngeen def c'est pas quelque chose bu bu basique. terre à que doo duggee Lutte TV la plupart du temps yeneen scènes yi yeneen sites dañuy reprendre seen seen seen seen i contenu moo tax si contenu yooyu laay basé wu parce que comme ni ma koy waxee c'est-à-dire nekkatul instant bii li nga xam ne euh, da ngay dugal loolu dugal dañ koy dañ seetaan parce que da ngeen xas ba am seen. Euh, personne basique mooy ñoo xam ne vitalité bi maanaam vitalité baa ngi foofu mooy. am na solo cinquante mille personnes. waaw bu baax a baax di leen ñaan affaire bi gën a dem. ñëpp gis ci seen bopp. Wassare News célébrité ak euh, société. merci.